bee ngi seet Doudou Sané ndaysaan ba xam yaram bi niin na wala niinul ngay wax ak moom ña ngay weccante ay kàddu moog arbitre bi ndaysaan Doudou Sané da koy teg ci loxoom nee da koy teg ci loxoom ndeysaan am na luñ ko jox léegi moom Doudou Sané mu ngëpp ko ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Adama ñëwal devant arbitre baa ngi waaj a ci ñaari mbëri ndaysaan laaj na ngañ seen laaj na ay superviseur laaj na Doudou Sané arbitre bi sifflé na ndaysaan ngañ seen bu njaga ñaaw ak Doudou Sané ngañ seen moo leen féete càmmoñ Doudou Sané moo leen féete ndijoor ndaysaan ñu ngi jàppante combat bi dina gaaw ngañ seen Doudou Sané ñu ngi forcante ngañ seen Doudou Sané fàqan na ngañ bañ na Doudou Sané fàqataan na ko ngañ jël na tànk ba Doudou bañ na dafa diis ngañ Doudou daw na jëli ko ngañ dawul ndeysaan ngañ melul dara Doudou Sané Doudou ko kaay ndeysaan ngañ seen Doudou Sané waa mi wóolu na boppam de wan mbër di dem ah lii doon ngañ seen Doudou Sané mbokk tey le dimanche 11 avril 2021 ndeysaan ñu ngi fii ci Fimela Manga 2 la c'est roi des arènes moo ñu fi woo il est 22h49 minutes dox ci diggante Doudou Sané ak Ngagne Sène ndeysaan ñoom ñaar ngi noonu Ngagne Sène mu njaga ñaaw démb moo jël fële ca Mbour Doudou Sané moo finalu démb fële ñàkk ko digganteem ak Waly Baye Waly ndaysaan ñoo ngi noonu ñoom ñaar Doudou Sané ak Ngagne Sène ndaysaan kii daa finalu démb jël ko kii finalu démb ñàkk ko Doudou Sané daa finalu ñàkk ko Ngagne Sène finalu jël ko ndaysaan Njaay Njaay Fatick démb Doudou Sané moo fa finaloon daw na jëli ko Doudou Sané daan na ndaysaan Doudou Sané daan na ko Doudou Sané jël na final bi ci kaw ngañ seen Doudou Sané jël na ko ndaysaan Doudou Sané jël na final bi ndaysaan fii ci film laa tey Doudou Sané jël na ko ndaysaan Doudou na ko ndaysaan mbokk yi loolu lañ leen indi loon fii ci film laa di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi moo xam nga ne bitim réew te safoo wasaare làmb di leen jaajëfal bu baax di am kontaante ak mbégte di nuyuwaat bu baax a baax le grand promoteur Idaly Gningue lii ma sañse ci kaw ba ci suuf moom moo ma ko jox ma koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla na jàmmam yàgg moom Idaly le grand promoteur mbokk yi di leen jox di daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.